yàlla. lu ngeen mën a gën yàlla. te mooy ñëpp am. da di mën a jox ñii rek. da di mën a jox ñii rek. ñooñu jox ñeneen. ñooñu jox ñeneen. ñeneen jox ñeneen. ñeneen jox ñeneen. su fekkee doxal nañ ko ni mu waree. doxal nañ ko ni mu waree. fii nag incha allahu. fii nag incha ci ñooñu la bokk. te ñooña la bokk. jox ñi ñu jox ñeneen. xamuñu jaay ceeb. xamuñu nun jaay ceeb. ndax koo xam ni. ndax koo xam ni. quartier ba nga dëkk. quartier ba nga dëkk. bés bu ne. bés bu ne. fukk dëñë fa. fukk dëñë fukk fande fukk fande soo jaayee ceeb. soo jaayee ceeb. santoo yàlla. santoo yàlla. moo tax xewu fi. moo tax fii xewu fi. lu ñëw. lu ñëw. dañ koy booleeg la am. dañu koy booleeg la am. jox ko jaami yàlla yi. jox ko jaami yàlla yi. kenn ku ne la nga war a am la nga ca war a am nga am ko ca. te bu amul woon. nee te bu amul woon. du nu toog fii di ko wax. du nu toog fii di ko wax. ndax kon dina am ñu nu jéppi. ndax kon dina am ñu nu jéppi. waaye li ngeen ñu jox yëpp danañ ko joxewaat. waaye li ngeen ñu jox yëpp dañu koy joxewaat. ba wut leneen lu ñu joxul sax dolli ca joxewaat. ba wut leneen lu ñu joxul sax dolli ca joxewaat ko. loolu nag ñu di leen ci sant bu baax a baax. loolu nag di leen ci sant bu baax a baax. ci xeeti ndimbal yi ngeen di def yëpp. ci xeeti ndimbal yi ngeen di def yëpp. ñi koy ngeen koy defal. ñi ngeen koy defal. dinañ ko mérité. dinañ ko mérité. yàlla nañ ko mérité. te mooy. ni ngeen leen ko joxe. ni ngeen leen ko joxe. ñoom itam ñu am générosité. man ko distribuer ci jaam yi. man ko distribuer ci jaam yi. ba kenn ku ne la nga ca a jot nga jot ko. ba kenn ku ne la nga ca mën a jot nga jot ko ca. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. nee ñu ngi lay gërëm bu di gërëm président bi la yónni. di gërëm président bi la yónni. est-ce que. da ngeen a foog ni. da est-ce que da ngeen a foog ni. yàlla. yàlla. boole gi mu ñu tubaab yi. boole gi mu ñu tubaab yi. njuumte la. njuumte la. booba maa ngi mer. ne takat booba maa ngi mer. di ndaw di ndaw. ni ko tubaab yi dañuy nax rek papa. ni ko tubaab yi dañuy nax rek papa. seetal. seeka. seetal. seetal. mbay ni mu méttee mbay ni mu méttee. lu ne danga ko def ci kër. lu ne. dinañ ko def ci ker. ba mu des mbéy. ba mu des mbéy. ci naaj rek. ci naaj rek. nga béy sa bakkan lang. nga béy ba sa bakkan lang. ñoom. ñoom. ñooñu ñu lay jox ñoo ñooñu jox prix. ni lii lañ koy jëndee par force. ni lii lañu koy jëndee par force. nun du nu fekkee du nu yëg. nun du nu fekkee du nu yëg. ñu seet li leen neex ñu bayloo ñu ko. ñu seet nag li leen neex ñu bayloo ñu ko. mooy gerte. te mooy gerte. gerte lépp dafa baax. gerte léppam dafa baax. mu di ma déglu rek. mu di ma déglu rek. ma ne ko ñu dem Mali. ma ne ko ñu dem Mali. bayloo leen coton. baylee leen ak karité. ak karité. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. café. café ak cacao. Indochine. nga dem Chine. Indochine Indochine. ñu bayloo leen ceeb. ñu bayloo leen ceeb. ma ne ko papa yii yëpp ñoo ko moom. ma ne ko papa lii yëpp noo ko moom. waaye tubaab yi dañ koo nangu rek. waaye tubaab yi dañ koo nangu rek. kon nañu dem abal ñu rek. kon nañu dem abal ñu rek. mu déglu ba ma wax ba àggal. mu déglu ba ma wax ba àggal. mu ni ma mu ni ma. mbaadu da ngeen foog ni. mbaadu da ngeen a foog ni. boole giinu yàlla boole tubaab yi. giinu yàlla boole tubaab yi. njuumte la. njuumte la. mu ne ma du njuumte. mu ne ma du njuumte. bu dul woon tubaab yi. bu dul woon tubaab yi. dañ gis laa ilaha illallah. di nga gis laa ilaha illallah. dab laa ilaha illallah. dab ma. ca ma. ni ko deq rendi. ni ko deq mu ne ma buddi woon tubaab yi. mu ne ma buddi woon tubaab yi. du ñu xam suñu bopp. du ñu xam suñu bopp. bay laaj suñu indépendance. bay yàlla bëgg nu xam suñu bopp. yàlla bëgg nu xam suñu bopp. mu boole ñoog ñoom. mu boole ñoog ñoom. ñu nekk ci seen loxo. ñu nekk ci seen loxo. tey tey. ba xam suñu bopp. ba xam suñu bopp. bay laaj suñu bopp. bay laaj suñu bopp. d'accord. d'accord. waaye nañ ko def ci jàmm. waaye nañ ko def ci jàmm. def ko ci teey. def ko ci teey. man indépendance bu ànd ak violence. man indépendance bu ànd ak violence. ànduma ca. ànduma ca. jox ma moom itam ay layam. nee jox ma moom itam ay layam. ñu nangu ko nag. ñu nangu ko. moo moo tax. bu ñu amee indépendance bu ñu amee indépendance it. ku fi yàlla teg rek. ku fi yàlla teg rek. dañ koy nangu rek. dañu koy nangu rek. ña koy contesté. ndax la koy contesté. ña ña koy contesté. du nekk nun du nekk nun kon nangu nañu li yàlla def.